di teg nuyoo yooyu nag ak ziare ci loxoy sunu jur wi teewe jataay bi di sëriñ Bachirou waaye di ko teg ci loxol sëriñ maam Cheikh mbakki mi nga xam ne moo fi jëmmal sëriñ bi ci njaboot gi lépp nag ci ron sëriñ xabaat mi nga xam ne moom la njaboot gi fekk si tey ñu nuyu njaboot gépp di leen ziar di leen ndokkeel di àndak ñoom. jotaay bi ak bis bi ginnaaw bu ñu siyaaree Cheikh Mouhamadul muntaka ñaan sunu borom gën ko sam gën ko dëgëral mbokk fi taw yépp ñi ngi leen di nuyu di jokk li ñu seq yaa am lool nak ci téw ci jotaay bi nga xamné ne euh, lu bari la fay lu bari ma ngi wax sëñ Modou légui euh sama woy jure nak njabot gi fi nek ñep sama njabot la ndax borom kër gi maag moom la won kon nak ma ngi jokk lool lepp di am bëgg lool ci tew fi fekk ci fi njaboot go xamne ñepp leen bëgg jaboté ndax nit ñu bax ñu jup gëm yalla lool te bëkk doon talibé serigne touba di dundu sen dono yalla yalla barkel ñepp ñëpp te sàmm ñëpp Sëriñ Murtala wax na ko tomb bi mbokk yi sakko won moy ñu waxtaan ci jafe-jafe yi am ci yar ci jamono ji nga xamne jamono ju ubbiku la jamono yi àdduna ju daj nga xam ne kenn mënatuta beru fenn dina ci sa bopp loolu jàpp naa ne ñun ñëpp la war a soxal képp ku njaboot yar war na la soxal fi mu toll bu fekkee xam nga masuliya bi ay ci saw loos maanaam responsabilité bi gàll saw loos ñi nga jaboote yàlla di la leen laaj bu ëllëgee ndax moo wax moom borom bi ne yaa ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran waquduha annaasu wal hijaara yow lañu sant yow jabot ji nga fegal sa njaboot sawara li tax ñu mëna mucc sawara nak yar la kon warna nek soxlas kep ko xamne ne nga euh yar nak buñ ko don xamlé mën nañu wax ne moy tax nit nité doom adam bu ñew ci aduna xayawaan la suñ ko yarut mok hayawan yi ne ci bitti nek xayawaan ghayru natiq ñoy yam xiif man na lekk ak naan ak nelaw ak jaxasoo mooy doon seen yitte foofu la ñuy yem waaye bu nit bu nitee nag ci lay am yitte ju kawe xam li ko yàlla doyee mooy mu nekk ab xalifa waaye wara nekk kuy dundal suuf di dégg li borom bi waxoon ne huwa anshaakum min al ardi wastamarakum fiha dégg it li mu waxoon ne maa xalaqtul jinna wal insa bu doon loolu yar mooy tax nit mën koo doon doomu aadama bu juddoo te yaruñ ko moom maa lay ci mbedd mi yor ñeent tànk ñooyam bu ñu xiifee yuuxu bu ñu reggee yuuxu bajantu bu ñu sonnee tëdd nelaw bu ñu yewwaatee jógaat ci yooyu seen yitte yëpp foofu la yem nit nag ku nitee mooy ki nga xam day xam daa war a jeexital ci àdduna lu fi fekk lu jàgg mu yokk ko yaatal ko lu mu fekk te jagut mu dindi ko loolu ab yar mooy tax nit man ko doomu aadama yi day mel ne bu ñu juddu ñoo bokk fu ñu jógee day ñëw mel noonu rek du indaale dara waaye yar bu baax mo leen def liñ doon borom bi neene wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a yàlla mo leen genn ci seen biir ndey xamu leen tous waye nak waja'alakum sam'a wala busara wala afidata laallakum tashkuru waye jox na leen ay jumtuway yu ngeen mën doone dara ngeen mën xamé dara moy ay nopp yu dégg ak ak bët yu gis ak xel muy jàpp kon loolu day firi ne yar mooy li nga xam ne doomu aadama ji mën koo ñàkk ngir mu nekk nit ku nite bi ci des it àdduna lépp xam-xam la ak ki jaar-jaar ci yar lañ ko mën a jaaree ba joxe ko yàlla suñu maam aadama alayhi la xamaloon xam-xam yi wa allama aadama al-asmaa kullaha xam-xam yépp ci biir xam-xam yooyu nag ki yar lañ koy jaare ngir tuxal ko ci mag ñi jox ko ndaw ñi ndaw ñi jox ko sët yi boobu muy soob yàlla fu fu yare nekkut xam-xam du fa nekk fu xam-xam nekkut jëm kanam du fa nekk kon mooy tax nit de mooy taxit xam-xam yi ak man-man yi mën koo jële ci maam yi yóbbu ko ci doom yi ñu jàll ci sët yi fu fu ne jamono toll ñay ñëw mën koo yokk mu jàll jëm kanam loolu yar mooy tax mën a nekk yar mooy tax nit gore xam ne li ne ci àdduna da koo bokk ak ñeneen ku yarut nit ku goreet lay doon lu mu jekku day jàpp moom rek moo ko moom su bëggé dara day japp né kenn wërta bëgg kenn wërta am kudul mom yar moy tax nit goré ba xamné li né ci aduna ko wara bok ak ñeneen ñi moy tax nitit mëna xamni aduna day neex di nakari su nakare nga mëna a dékku mën muñ ba mu neexaat waaye ku njërut bu jamono nakare rek ñëpp xamné jamono naqari na loolu yoyu nak kon moy wané solo yar xamné nit mënu ko ñak suñu bëggé mu doon nit ko xamné doon dara mo taxit moy muhim mëpp mboolem fi massa jaar almuslihuna min al ambiya yi wa saalihin seen muhimma seen rol ci àdduna moo doon yar nit ñi yar nit ñi jàngal leen taskiyee leen ngir ñu mën a doon nit ñu nite loolu doy nañ ñu xam ne mënta ñàkk ci ak dund doomu aadama suñ ko andee ci suuf li gën a woyof ci yar gën cee ñàkk solo mooy xont te nit ñu bari foofu la jam dañuy xontu seen njaboot waaye yaruñ leen xontu moom jox ko muy lekk ka naan di woddu loolu lenn la ci waaye nag loolu doyut kon solo seer foofu la nekk su ko defee nag jafe-jafe yi ci nekk fi ne ñu tollu mooy naka jëkk jafe-jafe la woon ndax doomu aadama nga fexe ba dindi ci moom défaut yi nga xam ne da ko fekk àdduna di ko gis nga fexe ba dindi ko ci moom waaye fexe ba li manqué ci moom ci lu war a ne ci moom nga def ko ca loolu naka jekk jafe-jafe la woon moo taxoon borom bi subhaanahu wa taala daan tànn ay yonent jamono jone di leen jox ay risaala ngir jotli ko nit ñi jamono jone yàlla daan yebal ndaw jox ko ab leetar ne ko demal jotli nit ñi lii ba ci yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne mooy xaatam xaatimul anbiya wal mursalin waaye moom ba muy dem bàyyi na fi ay boroomi xam-xam al ulamaa warasatul anbiya ñoom ñoo wuutu yonent yi ci yare jàngale googu loolu it day doon lu mat di mat di bàyyi xel ñu xam ne kon euh, nit ñi pour ñu nitee faw ñu yor leen moo taxoon yàlla wàcc jaam wàcc yonent yi loola yonent yi dem bañ jeexee borom xam-xam yi des fi ñoom boobu àdduna tukki dañ fi nekk di jottali woote bi yàlla fexe ba nit ñi mën a tegu ci yoon xam lañu war a xam mel nañu war a mel jafe-jafe yi nag fi mu ne nii mooy dafa gën a tëju xam nga nit daa nga am sa ndaw tëjoo moom ci barab fóot ko ba mu set nga duy ko ba mu fees ndax fi nga ko indi lenn lu ko yàq nekku fa te loolu alxuraan wax ne wa jaalakum sama wala bu saara wala fida doom aadama ji li muy gis di ko dégg mooy dugg ci xolam boo fexee ba teg sa doom wala njaboot ci barab bu sell muy dégg mbaax di ko gis kenn mënutee mu baax léegi loolu jafe-jafe la mag ñu baax ñi doon ali Mawlana Cheikh Ahmadul Xadim bi muy sañ ci dëkk bu tedd bi Touba loolu la doon wër bi asaliha environnement bu set bu baax boo xam ne da fi mën a fóoti nit ñi bañ set duy leen bañ fees moom la waxoon ca duwaawul kabir ne allahumma innaka xutta zimami ila al ard allati ixtartaha lii wa banaytu fiha daarayni li aabudaka wa tuuba tabarrukan bihima faj'alhuma bi fadlik wa bi jaahi wasilat ilayka sallallahu taala alayhi wa sallam saalimatayni ghanimatayn nekkoon barab bu metti bu tàng néew ndox waaye bari xéewal ndax yàllaa fi nekk ak njaboot yàlla mu defar fi ay mag yar leen bañ bañ bañ gën bañ gën loolu nag tey bokk na ci jafe-jafe yi yar am maanaam fexe ba teg njaboot gi ci bi a saaliha ndax lan ubi ubbiku la jamono technologie la jamono mondialisation la aduna nek nekk ab deuk village amatu ben deuk ben deuk la bu bu reey rek lay xew tay ci fa gëna soori ci penk wala ci sow jamono yimi xewé nit nit dana ne fii di gis bu ñëk da nga daan am say goné bu gudd jotay bo tejé sa buntu kër bi kenn génnul rek baxna na nak tejël buntu bunt yu tëj bi fay lampe bi goné ga nga yor ben écran bo xamné mi ngi wër aduna di for rek lu mu jot jël kon yow mi doon yare dafa am ñeneen ñu bari ñu ñu ànd ak yow di di la yarle te bokk leen ay jëmuwaay bokk leen ay jubluwaay loolu bokk na ci jafe-jafe bi yar gën a am beneen bi ci dëpp mooy yar njaxas mi da ci am léegi yu baax yi ak yu bon yi dañoo jaxasoo ñu mel ni penc tànn jafe lool ne ki yàlla dimbale mu xamé mëna tan mom day fekk lu jekk mu jël la ci sun mu bu jekk nak da nga daan teggono gi rek fu sel li fi nek lepp lu bax la lu mu ci tan baax na léegi nag fi nga fekk juugub mbaax fi ngay fekk juugub bon te bu amut ndimbal du ko mëna xamé ñi bok ay way bok bokon ñora and nga barab bo ci dikkee ñi fi nek ñepp ñu bok fu ñu jëm bok luñu bëgg légui ci benn barab da ngay fekk ni ñi kenn ku ne af xibla bu mu jëm ñi jëm penku ñi jëm sowu ñi jëm salum ñi jëm ganar kenn bokk ci sama lo bëgg kenn bokk ci sama lo looy wut kenn bokk ci sama rom fa bëgg jëm man na tank ne lolu moy lolu moy jafe-jafe yi gëna mag fi ne ci yar kon képp ku jabot am nga responsabilité ci ci lolu nga bayyi xel ne jamono ji du jamono ju ñëk jëg bi ci euh moytu li ñuy wax dawres ñu bari dañ naa la njabotuk legi njabotuk kanar lañ dang leen di jital topp seen ginnaaw loolu mës ta nekk ab regal ci aduna bokki naka borom bi subhanahu wa taala dafa santone way jur yi kilifa yi ñu sam njabot gi xamal leen de bu ngeen ngeen fexé ba mucc ci sawara ci yar leen jangal leen teete leen kon jafe jafé la bu mag mag bo xam ne képp ku ci yëngu rek xam nga ko léeg nga lool ci njabot daf ca lu ne mu génn tukki ay fan yu néew dik loolu ñu jàng yar ak jàng xam nañ ko gis dong boo xam da ngay sonn ci moom mu jàmbare lool waaye ak bër am mu dem war yàqu ndax daje fa ak ñoo xam ne war nañ ko ne li nga nekk dara am na jeneen jaww am na geneen dund xemmem loo ko ko ci anam goo xam day li mu nekkoon lépp dara bu dellusee loo ko mën a du ko déggati bu dellusee loo ko du ko dégg jafe-jafe boobu mi ngi ci yooyu yëpp nag bu amee teewul yar moom nekk fi mu nekkoon nekk aajo ñu war ko bàyyi xel. Euh, yoon wi ñu ci mën a jaar nag ba am ci ndam man dama koy delloo rek ci la sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu waxoon jàngale woon ko te ku ca tënk moom lu jamono xat-xat lu metti metti incha allahu taala danga nga am ndam ci sa biir sëriñ bi ci lu gàtt dafa junju yar fuñ ci war a jaar ak fuñ ci war a jëm la ca jiitu mooy yar ki nga yar yow da war a am foo ko jëmee da war mana am mana jëm way masalan tay bo ne dama bëgg sama gone gi yaru dama koy yar dañ lay wax ne lu tax nga di ko yar fi ñepp ci nit ñi dañ dama bëgg gone gi tekki te duñ la leeral lan moy tekki japp na ni ñepp ci nit ñi tay bo le won dom ju tekki moy lan dañ na la moy dom ju am xaliss dañ na la ju am turu ju am pouvoir am nangam yoy lañuy tuddu mbiri aduna yoy nga xamne képp ku dund yàlla dana la ci jox sa wàll tekki dëgg dëgg mbokk yi mooy jub adduna dañ la fi indi ngir nga jub mooy li nga xam ne boo ko defee lépp luy sa wërsëg da nga jot jotte da ko jariñoo waaye boo jubut sa wërsëg da nga jot jotte waaye du la jariñ moo taxoon sëriñ bi waxoon ci bu gàtt ne yaa ayyuha sibyaanu laa tashtaxilu an al huda foofu mu ngi doon wax ne gaaya way bi yar wara am moy fexé ba ndaw ñi jup bu jaax yow da lo bëgg ci gona gi da bëgg mu jup kon lepp lo ci def ngir mu jup motax nga di ko ci def loo koy jàngal loo koy tàggat jëm fa rek day doon aw yoon wu lay xal jëmee ci jup alaykum assalam nga xam bu noppee dana jup sëriñ bi loolu ñu jangalo kon ñu bayyi xel ne kon raayaat yi ñi tek sun kanam bu bëgg gi ag fa na doon na gone bul wax na man nangam wala doon nangam bëgg na mu ag barab sangam bëgg na aw turum ag barab sangam na doon ko jup gisa bu jubé dana taxé aduna taxé alakhirah bu jubé dana muccu aduna muccu alakhirah ku jubut du taxé ku jubut du muccu kon fexé ba ndaw lu jub gën mu amu tur ñaata nit ngeen xam ño xamne bu dee dem nañ ba am ci li ñepp di am ñu xey toroxal len go xamne bu tukki do du toroxal ci jëf ju ñaaw ju ñu def wala jëfalante bu ñaaw kon na fexe ba gone gi jub bi ci des it nañ ko nañ ko taxliya taxliyeeku nañ ko fóot dindi défaut yi nga xam ne nit da koy màggale lekk léeg ay jikko yu sew yi ne ci nit nga dindi ko ca waaye mot dafa ci moom jikko yu mbaax loolu nag jàngale moo koy waral moo tax gone dañ koy jàngal gone dañ koy jàngal ndax ndab gone ndab la te ndab du widd benn nga sol ci xam-xam bu am njariñ mbaam mbedd mi sol ci xam-xam boobu njariñ waaye bu kenn jàpp ne gone da nga koy teg nii defoo ci dara ne kenn du ci def dara waxtu ni ngeen dégg koo xam day jékki-jékki naan sama doom ji damaa jaaxal li mu xam li mu mel jàngalu ma parce que da koo seetaan ndab bu ci dara nekkul ngelaw solu ci waaye du widd moom waaye nit bu ko xamee dana tax nga xam ne gone gii da ngay njëkkanteeg jamono fexe ba daf ci moom li nga bëgg mu ne ci kon jàngal ko xam-xamu diini jàngal ko xam-xam yi laa tastaxilu anil huda da caa tegoo ne wa bil ulum istaxilu wa bil ulum la wax na ngay fexe ba jàng xam-xam yépp xam-xam yi diine ak xam-xam yi adduna yi ndaw ñi dañ ko war a xam xam-xam yi diine ndax mooy tax nga mën a dund sa diine li yàlla bëgg ci yow nga mën koo sàmm xam-xam yi àdduna mooy taxit li la yàllay doyee ci adduna nga mën koo mate fi ne jullit ñi dañ ay altoppe lañ technologie bi ñuy wax ni julli ñi dañee na ci ginnaaw boo gisee mu jafee mucc ñi ko karee gëmuñ yàlla dañ ca dëxëñaale seen i pas-pas ak seen i ngëm-ngëm loolu bokk na ci li ñu sonal kon fexe ba xam-xam-xam yi yépp ñu jariñoo ko loolu bokk na ci lii tax gone yi mën a mucc kon yar bi buñ ko yemale ci xam-xam sàngam nañ jàng lépp bi ci desit nag gone boo ko dee yar di ko jàngalit da ngay fexe ba wutal ko royukaay mana dom adama xam-xam yi muy am bu fekke ay théorie kessa la gisut genn jëm ju nek bu genné du ko jàpp si loo mën nit waye bu xolé mbedd bi du gis kenn ku ni mel loko ne baxna na te bu genné du gis ku ni mel noona mënu fex bam japp ko bu genn diko sann motax jang da war am ku ku ñu roy nit ko xamne théorie bo xolé jëm jëmm gis ko ca bu jëfé mu feñ bu waxé mu feñ bu jëflanteeg nit ñi mu feñ lu mel non dañ ko soxla ci ab yar kon faaw ñu am ay nit ana bo gisee mag ñi àndoon Serigne Touba radiyallahu anhu seen tawfiq mooy lool lañ amoon jëmmu yàlla matal ci wet yëpp mu ne ci seen kanam ñu di ko xëy di ko xool xëy di ko xool rek dana tax baax moo tax jamono ju ne it ay nit ñu mel noonu dañ leen di soxla ay nit ñu yiw ñu baax ñoo xam ne saa boo leen gisee fàttaliku sa borom saa boo toogee ñoom ba jóg sa xel dem ci yàlla da ngay gën a bëgg lu baax gën a lu bon. loolu muy waxoon walaazimu man laa yazaalu abida li rabbihi ilaa hudaahu qaayida jàngal nañu kon royukaay boobu ñuy wax ñaari melokaan dana ko am da nekk abid nekk qaayid maanaam abid bi koo xam ne ni yàlla bëgg nit mel ni noonu la mel ab jaamukatu yàlla la ci maanaam jaam gën a yaatu maanaam jaam mooy nekkal yàlla ci kaw suuf loo ko séen da cay dëppoog ne yàlla bëggee boo ko fekkee ci jàkka ja ak ca kër ga ak ca tool yi ak ca usine bu ñoo yam da nga xam ne kii li ko yàlla sant ca la nekk kooku mooy abid waaye nag day doon koo xam ne it lépp lu ne ci moom kum dendal wàll la ko na nekk abid nekk qaid kum nekk dendal wàll la ko nit mën naa baax loolu bañ di ko soow waaye bu fekkee mbaax gi ci moom la yem it amul solo kooku doy doyewuñ ko dara ci nit ñi société bi soxla ku baax di baaxal saalix wa muslix lañ soxla amma an yakuna al insaanu saalihan kese te mënta defar kenn kooku jeexitam du bari kon mun yu nàkk ñàkk beneen bi ci topp mooy bii asaaliha bi ñu leen wax léegi faaw ndaw ñu wutal leen environnement bu baax moom la suñ bi doon dunju ba muy wax naan wajitani bu majaalis shaqaawa na ngeen moytu majaalis shaqaawa mooy environnement bu baaxut jataay boo xam dafa dégg mbaax doo ko fa gis kon ba lay dugg ci sa biir xol mooy mbon foofu nag la coow li rek nu ñuy fexee ba am bii asaaliha sëriñ bi moom la xàlloon fii indi fi mbaax lu baax dong na fi. ñu bax dong ne won fi lo fi deg ay noddu ak bax amna na mel na mbokk mo xam ne dana ñeengoo pour wax leen bax solo gi jek jek ma mënatu ko ma laaj ko ne ko señ bi yow da nga daan ñengul tax legi mënatoo ko mu ne ma dekk bi noddu yek zikar sek neena na motax mënatu noddu parce que yoyu fu mu yaatu mbon joge fa yëfi setan la fu mu mbaax mu joge fa saa bu noddu ka bi yekete di noddu setan day day daw di di foroxal di dem bu noddu gi daanoo mu del siwaat bu ñu taxawalee noonu waaw bu ñu dëkkee kon di tudd yàlla mu dem moo tax sëriñ bi dafa waroon fi jaww ju mucc ay yoo mbaax rek nga fiy dégg leneen lu fi rax ginnaaw bi ñoo ko fi indi mbokk yi li xew ci yeneen dëkk yi ñu ko fi dégg loolu responsabilité bi ñun ñëpp la dëkk bu ñu set ba mu set wécc ku fi dugg ay fan baax ku fi dugg ay fan baax bu ñu sàgganee ba mu ba mu nuróog yeneen dëkk yi danañ ko lay ak borom boo lëgee bi asaalix boobu nañ ko téye. fexe ba Touba des loolu nga xamné ne ci dëkk bi rek day doy mbax ndax sa bo xëyee ñu mel non ngay dajal ñu jang goné yi tollu ci jang di rawante ci jang di sol yéré yu goné gone gis teg ko mag goné goo gis teg ko mag ndax lan ciol ko amna ñu xamné japp ne goné mom sol lu bon lu gatt la war di sol bo solo sol gu yu rek japp né mangal fekk loolu moy lu bax li bi asaaleex bobu sëriñ bi defaroon nañu ko fi mag yi doon nañ ko roy ci mom dëkk yu ñu mësa seen dëkk yi noonu lañ koy defee daaraa fay nekk jàkkaa fay nekk ay tool ñuy liggéey di jaamu yàlla doo gis jaxasoo doo fa gis caaxaan doo fa gis caaxaan loolu nag faw ñu téye ko niñ koy téyee nag léegi du caagee ne da ngay nit ñi buñ génnati waaye da ngay yar nit ñi li ñu wax ne sëñ Mouhamadou lu ma ko waxoon ne maam Thierno mook sëñ Modou Moustapha day na jàngaloon bañ ne ar yar leen bañ ne nër yee leen bañ ne jar ñett yii nii mooy yor gone yi faaw ñu jàngal leen bañ ne ar ñu xam lu war a xam gis nga nit boo ko jàngalut bàyyi ko muy dem bu génnee ab tën lay doon ku ko soxla jariñoo ko bari na ñoo xam tey seen doole ak seen i yëpp ay ñeneen koy jariñoo ndax dañoo xamul kon nañ ko jàngal bam mu ne ar ji mooy li mu ñu war a xam lépp nañ ko xam ci xam-xami diine ak xam-xami àdduna maanaam tey bari na ci dëkk bi yoo xam ne nii ñañ fi indi fi ne nii ñu ne fi jaadu wutoon tey ñu ne ci dëkk bi waaye seen xam moo leen fi indi ndax njabootu dëkk bi xamuñ loola loolu njumte la mbokk yi fawuñu ñu gone yi ci xam-xam yi àdduna yi ba loo soxlaate ci fu mën a doon la ci dëkk bi boo dikkee ne ko sama doom wala sama sama jarbaat moo la koy defal kooku du yàq du jaxase du fi def lu noonu loolu loolu ban nañ ko bàyyi xel nañ ko bàyyi xel baax baax ci wàllu googu kon fexe ba euh, yi manque yëpp ñu andi ko fii bu ko defee. suñu suñu suñu suñu eh, fexe ba gone yi bi asaali ba bu daj wàllu yëpp ñu jàngal leen ko jàngal leen xam-xam yooyu yëpp waaye nag yee leen bañ ni jaar ci naka yee da nga koy def nit mu mën a tànn xam nga jamono yi ñu toll du jamono yi gëmmal bul xool waaye da ngay xool waaye xàmmeel lu ci baax lu baaxul nga xam ne fu mu dem day xool la baax mu jël la ci la ci des bu dee déglu rajo am na loo xam ne saa yoo ko déggee ne li baaxul. ginnaaw tubaab yi ñoo man yar seeni gone ba am na yoo xam ne bu dee filma dañ naan lii gone waru koo seetaan ñoom ñoo koy waxal seen bopp bàyyi ñooñ lislaam ñoo gën a yey ci lu baaxut gone gi xam ne lii baaxut mu bàyyi ko waaye boo yemee ab yar-yar boo dikkee ne fay leen boo boo boo génnee ñu taalaat dafoo dara ak ni nifaq nga leen jàngal am na gone yoo xam ne ndeysaan tey dañ lay wax bu ñu nekkee seen biir kër yiw lañuy sol waaye dañuy jiit loolu yëwati li bu génnee fi leen koy teree sumiku lolou mbok yi ak nifaq nga jangal nit ki boobaa sa jaan wàcc na bi ci dess na nga yar ko bam ne nër moy lan nga taggal ko ci mbax ba nga xam de day rusa def lu bon amna ño xam ne rusuñu def lu bon dañu ragal def lu bon ci kanam nit ñi waye suñu làqutoo ñemee meena def lu ne waye nit ko xam bu tëju won ci nek sangu ci bir rondal di xam ne yàlla ko gis mi ngi koy bàyyi xel koku momata baye xel fofu lañ wara ndaw ñi fexe ba nga xam ne ni bu ñu noppee ci ñoom jëratul nga leen di wax dara fu ñu dem ñoom dañuy xool rek la fa jag ñu ànd ak moom la fa jëgut ñu sànni ko kon yee googu ba bañ xàmmee mën a tànn ak yar bu nër yaru kilifteef yi ku nekk seen kilifa ñu nangul la ko di joxe kilifteef képp ku nekk seen kilifa bu ñu la gisee nangu nañ sa kilifa nga joxal wàccuwaay wi nga am loolu la ñu xame woon fii mu ñu ba nag ñëpp nekk ay moroom kenn kenn tegutul kenn fenn loolu mooy jafe bi am. Yoyu mat di mat di xel la kon ñett yoyu, euh, jàpp naa ne fi ni ne nii mooy jumtuwaay yi su ko bu amon, saa bu yar bu ame mat ni ñu mel ni ñu mel la jur mooy ay nit ñu jàkk te loolu Serigne Touba jëmmaloon na ko ci ñi yaron leen ay nit ne damay faral di wax ne Serigne Touba du la du bind lettre ne la seexal naa day defar ba nga jàkk mu demal dëkk bo dem ab asiyé ngay doon nit ñi dañay gis gis ci yow mbax ku la nuyu bu suba mu wat ku dellusi bu su ëllëgé mu tok ndax mbax gi mi ci yow kon nit ku jakk noonu la mel waaye Sëriñ ba daawul ñëw rek propagande la neela campagne yow xéxal na la bu génné neel xéxna da ngay génn kay dub lool dem ci dëkk ba gën fa wa dëkk bi xamné fa nga joggé won bokku ak ni nga mel mi fi joggé ñu top la mbolo mi top la it nga daal di jaar yoon won jaar leen non kon jeexeti yar bu baax moy defar nit ku jàkk koo xam ne day nekk abdun lillah li tax yàlla bind ko ci suuf mu ku ca du ko wàcc mukk loolu mooy soxla si mbokk yi mooy yitte ji nga xam ne ñëpp mag ñi gone yi képp kuy dox ci kaw suuf naa nekk sa yitte waaye boo dee dund nii yori gone jàpp ne boo joxe añ joxe reer joxe ndekki di wodd wàcc nga wàcce goo dangay ngay xont waaye yaroo dundaloo aw yaram ngay defar te ruux moo am solo yaram wi ab xoor la ñeel ruugi da ko ëmm ndab la ruugi moom dañoo dundal ruugi nag ak pass pass gëm yalla gu deugar ak njub moo koy deugar moo koy dundal lolou moy yitte ji nañ ko bàyyi xel assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh